everybody all around the world. We're back for the culture produced by Edge Entertainment, hosted by me and my co by my side. I got my man Sirta and Possible. Les gars yi noo leen a gars ñi tàmbalee. waaw salaamaaleykum uh, mbokki Edge Entertainment tey nuyoo bi du bari quoi Possible la uh, for the culture so. ja salaamaaleykum gars yi di ñu seetaan Sirtam la. waaw de leen abonné wu di partagé nag. Assane Diouf surtout loolu waaw di eh, partagé. Eh, Assane Diouf <laughs> tey tey dañuy dañuy démarrer ci beneen numéro comme à la coutume tey am na des sorties yoo xam ne am na ci ci période bi période bi ñu ñu nekk ne exactement euh, dañuy léegi dañuy jël benn groupe boo xam ne ni nekkoon na fi ay jamono mun nañu wax si mun nañu wax ni sax ci pionnier lañ bokk ñu ne fi ne fi dem ba groupe bi changé tout nekkaat leneen mais terewul lu mu daan liggéey mu ngay gën a liggéey su ko yokkul sax. parce bokk na ci groupe yoo xam ne ñoom ñoo génn ñoo njëkk génn à l'international. et ils ont ils ont porté haut le drapeau du Sénégal côté musique hip hop. particulièrement mais terewul con lu jafe lañ am quoi lu ñu naan constance. constance boobu moo waral tey ñoom ba tey jii en deux mille vingt et un vingt ans après vingt cinq ans après wala sax trente ans après ñu génn album te terewul album bi moo ngi am niveau. ñu leen xamee leen ci daara ji femel génne leen album baama lii album bi bon yaa def nañ ci ay clip yoo xam ne bon ça ça. Ah, comme single ah. ah, bi quoi single baal ma def nañ affaire yoo xam ne nii bon mm. mu bëggoon ñun tamit comme ko tàmm di defee ñu joxe suñu eh, daara ji maa ngi siyaar waaw daara ji family xam nga dellu si nañu quoi xam nga dellu si nañu ak un single bien sûr un single après seen album bi dañu enchaîner instant bii nii ak seen single single bu tudd baal ma mais comme d'habitude quoi sincèrement genre ça c'est des c'est des goat xam nga c'est un mot boo xam ne ñun dañoo bëgg di <laughs> ñooñu dañ leen di considérer ci euh, ci kii boobu ci benn panthéon bu ñu nekk quoi c'est des goat xam nga c'est des légendes vivantes muy euh, Ndongo di di Fada Freddy Fada dans la voix dafa ñëw mu indiwaat affaire yam yooyu noonu muy def ba pare voilà quoi saa yoo ko dégloo rek da ngay mel ni kuy sentiraat faada bi dafa am leneen souffle bu nouveau quoi tu vois nongo di kii moom mi ngi fi mu nekkoon ba léegi quoi dafa dafa téye baal bi foofu noonu dans les lyrics ak dawal bi yëpp mais le son baal moom voilà j'aime bien quoi même la conception de la vidéo aussi dafa dafa nice ok tam tam tam yow d'habitude yow yow moom lyrics moo lay gën a moo lay gën a baadaloo ci projet quoi mm-hmm. léegi léegi nongo nongo nongowu démb ak nongowu tey boo boo doon def comparaison bu taw benn étude analyse bu gàtt rek ndongo démb ak bu tey niveau bi bon lyrical yi. waaw ndongo moom ndongo la quoi moom moom il reste il reste fidèle à nekkul sëriñ léegi. waaw paasawul ndongo mais ci ndongo la ñuy quoi. parce que saa saa yu génnee rek moom. Hmm. ñun bu ñuy déglu ndongo souvent da naan moom c'est lui parce lyricalement Ndongo moom c'est un boo xam ne il il donne trop lyricalement quoi il se donne trop mais bon son bi nag c'est pas son boo xam ne dañ ci dañ ciy xapase son love tamit su nekk benn son boo xam ne dañ ciy xaar lu extraordinaire walla dara son bi bon foog naa loolu moo nekkoon but bi son bi accessible. mu comestible waaw mu waaw mu mu jaayaabul ci tiktokable tamit. <laughs> surtout loolu waaw et puis c'est c'est c'est daara ji tamit. xam nga toujours quand quand quand y a Ndongo et Fada y a mm. toujours cette cette cette cette complicité. Mm. ñoom ñaar bu ñuy indil. avec un Fada tamit toujours égal à lui tamit xam nga gars yi nee nañ il comme le vin. Ah. waaw plus muy gën a yàgg plus il se bonifie moom moom sincèrement saa yu. soo bi da nga koy dégg nga xam ne parce que en général bu ñuy déglu artistes yoo xam ne dañoo dañoo dañoo dañoo dañ fi dañoo dañ fi yàgg. Mm-hmm. ñun loolu la ñuy xaar ci ñoom quoi. maanaam son bi yow da koy dégg rek ne ah lii moom son bu mag la. si si donte son bi son bi ñëpp mun nañ si mun nañ ko déglu mais da ngay xam ne ay mag yu def son loof la quoi. wax yi xam nga tout dafa fidèle a à mm-hmm. ah, daara ji quoi. plus dafa nekk aussi si lii ñëw seen album bi. mooy li ma la doon wax sànq mm-hmm. projet bi ñu génne woon ak ballon bi day nekk si même ligne bi. ak euh, que yaama télé quoi. Mm-hmm. xam nga c'est des yoo xamante ni. Euh, dafa dafa update sound yi dafa update mais da ngay sentir ni ay mag la ñooy def sound yi hmm. mën nañ ko def comme ni ko xale yi defee mais le message dafay continuer fa nekk mais aussi la manière quoi tamit day continuer fa nekk te ça that's the key gars yi faaw ñuy maan ci ci yooyu noonu quoi. waaw ah, bon mun nañu wax ne ñoom eh, all day ñoom dañuy upgrade seen self quoi moo waral conscience bi xam ne ne saa yu ñu génnee rek flop quoi. mais to be hip is to be updated <laughs> so loolu. waaw waaw gars yi moom ñu ils sont ils sont ils sont ñoom ils sont de la culture quoi. waaw loolu moom day feeñ tamit seen i jëf. for the culture te hip is the way you live. waaw loolu moom dëgg la quoi. léegi dañuy jëlaat beneen daanaan beneen daanaan boo xam ne bokk na ci ndaanaan yu yëngal hip gaa seen. waaw dañ koy dañ koy am na ñu ko ñu ko d'accord. mais boo seetee dëgg-dëgg loolu loolu mun a dañ quoi c'est c'est une vérité boo xam ne nii loolu mënuñu kaa mënuñu kaa dindi quoi. Mm-hmm. waaw naanaan bu ñu naan kii t ci. waaw génne benn son récemment ci benn projet bu ñu naan Empire Hip Hop. Mm-hmm. boo xam ne ni DJ A la. ñu ngi kunku mm-hmm. moom moo foog naa moo produit kii bi mu tuddati beat bi ak yooyu noonu parce que projet bi. label bi ci boppam moom moo ko moom moo moo ko géré dëgg la waaw amoon na benn son bu xumaan génne woon bu précédé woon bii. Mm-hmm. mais dafa mel ni bii moo gën a def bruit quoi. Mm-hmm. léegi yow Keyti moom son bi loo ci wax yow la mooy sa sa sa kii daal sa sa avis par rapport ak son waaw li genre genre genre genre dañ ko war a ñaan ko muy bëri ci géej bi parce que mm. déjà Keyti gars yi chaque fois boo toogee da ngay dégg nit ne la mais Keyti on attend son kayit war nañu jox suñu album. bon nit ñi bu ñu ko wax c'est parce que dañoo namm kayit yi on veut on veut voir kayit yi. nit ñi dañ bëgg a gisaat kayit yi voilà 2003 ba léegi a gisaat kayit yi léegi nag quand ñëw indi benn benn initiative yu mel nii pour rabloo leen pour nit ñi déggaat leen tamit lool loolu c'est une chose à saluer parce que boo gisee tamit yenn affaires yi commencé dee ci hip hop mhm. maanaam yenn booy bu ñuy bu ñuy rap ñun suñu génération booy nii suñuy rap maanaam duñ def ay références yi gars yi parce que xamuñ leen. Mhm. xamuñ leen quoi dégguñu seen son yi parce que yàlla dafa def ñoom ñu fiy jógee fekk internet amul donc y' a beaucoup de produits boo xam ne gars yi duñ leen mën a gis duñ ko mën a am te yenn son yu bëri doo ko mën a am. donc un kayit yi ñun buñ koy déglu nii wala booyee buñ koy dégg nañu xam ne ah kii de c' est un ancien rappeur et puis tam wala c' est boo xam ne nekkoon na fi. Eh, c' est voilà voilà. mais nag su ñuy dem ci son bi tamit bon c' est Keyti comme ni ma waxoon sànq si si si noonu c' est Keyti bon man Keyti xaaruma ci moom yenn affaire comme yi man Keyti bu bu ma déggee Keyti album man lyricalement lay xaar lay xaar Keyti. image image image yi muy def ci son boo ko dégloo loolu loolu tam tu l'as quoi tu as ce Keyti donc am na tam y' public boo xam ne. kayit yi lu kayit yi bu waxee sax nice quoi. et on a senti ce public là comme si dañoo dundaat. parce que gis nañ ni son gars yi dañ ko doon partagé gars yi nga xam ne ils ils sont nostalgiques. xam nga ils ont ils ont kiffé ce kayit yi là quoi. parce que booy seetlu la tendance tendance tendance jamono jii nii mooy. Mhm. entre guillemets bon par habit de langage lu ñu woy rapu démb. waaw dafa mel loolu mooy tendance bi quoi moo tax. Mm-hmm. su gars suñu gisee lu mel noonu rek. Mm-hmm. dañ dañ ci dañ ci dañ ciy kontaan quoi dañ ciy bëgg. waaw loolu loolu loolu moom dëgg la ah loolu moom dëgg la boo xoolee temps yëpp moom chaque jour on on a fait la la ko quoi que son yi nga xam ne. wala projet yi nga xam ne mun nañ ne dañoo flop yëpp sont des projet yoo xam ne dafa bëri ay son yoo xam ne son son son bon tendance mode bi la woon quoi. ok drill affaire yooyu noonu. souvent dama koy wax lan moo tax accroché wu c' pas parce que nu ñu drillé noonu lañ doon drillé wala nu ñu defee son noonu lañ ko doon defee. Hmm. mais dañ ko génnee ci période boo xam ne nit ñi dañoo namoon yenn xeetu yenn xeetu biit. Hmm. dañoo namoon benn xeetu rab. Hmm. son yi ñuy apprécié dernièrement gars yi waxuñ fi lu kenn waxul gars yi rabuñ fi lu kenn rabul mais c' est surtout gars yi dañoo namoon genre affaire yooyu rek xam nga bon. et puis quand un keyti nous nous vient maanaam son bi ça vient à son heure. comme possible nu mu koy waxee. waaw ça vient à son heure. ah en tout man li ma li ma jàpp daal mooy. hip hop mi ngi am genre rap bu baax. mu ngi dundaat quoi mu ngi dundaat mu ngi ñëwaat. Ah. mi ngi ñëwaat y a les prémices quoi gars yi nañu pare man li ma jàpp mooy at bii ñu jëm nii mooy atum rap dëgg. ah 2022 ñooy sos. ah 2022 waaw xam nga ñooy sos rappeur bi. pas pas global <laughs> bala may civilisé soosu ñu. mais rappeurs yi. atum te man man. par rapport ak sound Keyti bi du ma si yokk lenn par rapport ak li Siteu ma parce que il a tout dit. mais man li may wax c'est ça c'est un plaidoyer benn genre. message bu may lancé la quoi officiel yi ak Keity. suñu album il nous faut un dernier album de Keity. même bu dee six titres la wala sept sax. au moins mu baaxee ñu lool s'il le faut ñun ñëpp on se cotise. tout bu neexee moom dañuy dañuy xëy ko su waaye duggal oto baa ngi ñëwal. enregistré après tout on ñu jox ko xaalis bi mu ñu am son yi. donc mais on veut un dernier projet de Keity balaa moo bàyyi rap quoi sincèrement. parce que Keity Keity pour mu amaat Euh, euh, kii nu mu tuddati Jolof Daaro dafa ne def préparer album dafa métti quoi dafa difficile lu mu ci album bi bu mu koy joom daf ci sonnoon quoi. Hmm. est-ce que dina sonnaat sonn boobu noonu pour génne album dafa naa wax lu mel noonu. mais xam nga contexte ah. yi du benn aussi. waaw yaa sa bi muy génnee Jolof Daaro il sortait fraîchement de Rapadio. Rapadio kayit yi ba Rapadio ba est-ce que dina ko mën. waaw est-ce que yaa ngi ko mën am na benn sas quoi y avait Rapadio bu éclaté. xam nga moom nag mu war a ñëw prouve que ni moom c'est un c'était un élément clé dans Rapadio même si ce n'est ce n'était pas le plus populaire mhm. de c'est vrai mais man dama jàpp ni c'était l'un des éléments clés te jàpp naa ni moom moo si gënoon update quoi li mu doon rab jamono jooju moom moom lay continuer di rabee et pourtant dafa dafa dafa présent et pourtant boo jëlee rabinu gars yooyu mhm. euh, Tali Bibson ou Iba liñ doon rabee noonu instant bi boo ko tegee gaanaañ waaw wasa kii lii lii moo daan génn jamono jooju noonu boo génnee lyrics ci n'a pas la technicité quoi moo tax nag yaa moo moo tax moo tax li mu wax moo tax yombul yombul ah. mais instant ndax jamono boobu jamono boobu il était maanaam gars yi amoon na sas quoi que qu'il était un peu bon il était en avant parce que bu géej yi ses sons techniquement da nga koy déglu nga xam ne kon ba tey comme li nga wax mm-hmm. donc da ngay nangu ni il faisait maanaam tout dépend albumu Keyti ça dépend du Keyti qu'il veut nous servir si c'est le Keyti là. Mhm. mais tey mën naa ne yombul quoi mais c'est un Keita boo xam ne il est ouvert d'esprit. waaw ouvert ouvert d'esprit. parce que man man man man je me rappelle Samba ah. Ah. su ma ko xamee. Ah. Keita la man tam dégg naa dafa tweeté. wax ci Samba na nañ suivre booy man dama xool kan mooy Samba. Hmm. donc loolu ouverture d'esprit la quoi. par rapport ak Keita yi. wala par rapport ak yoo xam ne. mais mais Malo Malo Malo himself moom xam na moom mooy kan ak buy génnee son lan lay def. c'est dans ce sillage ngay génn li ñuy génn mu firi ouvert d'esprit Malo Malo ouvert d'esprit bon maanaam ouvert d'esprit il est flexible mhm. nangu na li ce qui ah, se fait mhm, mhm. mais moom par exemple yëfu boppam waaw kayit yi peut-être il boo gisee mu ne album dafa lourd c'est parce que moom li mu bëgg jox nit ñi parce que il faut le dire ah yi léegi album dafa yomb si ñoom de. ñëw def nii nii nii moo tax possible day toog fii il descend ton album ne la baaxul. waaw loolu la bëggul nag. moo tax it moo tax it di ah sama album dafa métti donc. liggéey bu mu laaj. man njort naa ne daal perfection bi quoi. waaw perfection voilà voilà peut être peut être trop perfectionniste. Mm-hmm. moo tax mun na nekk peut être mun na nekk si benn son sax. Mm-hmm. deux mois pour defar ko voilà voilà ah, moo tax mu ne dafa métti quoi kon xam naa loolu loolu dafa mel ni jamono jii ne on est bien servi par rapport ak gars yoo xam ne sont nostalgiques de la mm-hmm. belle époque. mooy lu ñuy naan euh, golden age. ci hip hop gaa seen. mu beneen daanaan boo xam ne. bon il fii king te king sa long live de king quoi boo xasee ba doon king rek ci king à vie quoi hmm. mooy Gaston papa rab papay rab génnee man man le titre de l'album nu ko bindee ak nu mu ko tojee man man loolu dafa ma dafa ma dafa ma dafa ma dafa ma gondi a dafa ma gondi parce que xam nga dañu naan naaw mais moom maam la quoi sincèrement papa nañ bàyyi booy ñu <laughs> ko ay papa <laughs> mais mais mais garçon maam la quoi non bàyyi mu doon papa rek moom gis na mooy papa rek bàyyi mu doon papa rek <laughs> loolu léegi maam rek ah. parce que papa ay booy moom papa so c'est le good. Hmm. waaw parce que parce que déjà rien que euh, le cover. Hmm. ak titre album bi. da ngay gis ni kii intelligence la quoi. parce que mhm. tamit il faut ils ont pas de knowledge. Mhm. knowledge boobu gars yi knowledge knowledge loolu la quoi dañuy da ngay gis benn affaire nga xam ne lii c' est bien réfléchi. lu waa daf gërëm wax gymnastique intellectuelle et cetera. bi nu mu ko tojee. chiffre cinq bi. Mhm. dix-septième lettre bi correspond ak dix-septième. Euh, jour mu judd et cetera. cinquième album et cetera dafa dafa nice loolu c' est c' est de la bon xam-xam la quoi. léegi nag ah, voilà mm. réflexion la xam-xam la léegi nag xam-xam boobu noonu vécu boobu boo déggee vécu mooy loo xam ne ni ci benn diir boo xam ne ni ay jaar-jaar la. Mm-hmm. the life he been mm-hmm. ah, jaar-jaar boobu noonu moom la indi ci projet bi. waaw projet bi yow jaar-jaar bi ban partie jaar-jaar moo la ci moo la ci kii daal moo la ci marqué. waaw man. le projet daf ko daf ko daf ko tijjee intro bi mu def son bi. tuddee ko démb ba tey ba tey. Mm-hmm. donc c' est ça l'album en fait. mooy constance bu wax ci daara ji. voilà c' maanaam démb bi moom la. Mm-hmm. Mm-hmm. gas Gaston Gaston moom mooy démb bi. Mm-hmm. tey bi musique bi la ak thème bi. tu maanaam c' est pas forcé que ni yow tey ji euh, tu t' appelles Gaston ou bien tu t' appelles rek. que bu ñu lay déglu ngay rap rek dañuy da ngay indi bitu. voilà nineteens. da ngay adapté wu. voilà mais il a fait du. boom bap ou bien son le son démb ba tey bi si bitu boom bap la. Mm-hmm. bu mu bu mu moderniser il a utilisé le sample à représenter le real hip hop. bu Daz FX ak KRS One bi quoi. Ah. boobu la jël yokku si yokku am na écho drill. écho mm-hmm. biir. tu après mu woo un gosse boo xamante ni sur le beat making muy euh, Omzo Omzo beat. Mm-hmm. maanaam bi garçon di rap Omzo beat daanaka juddoowul. Ah. tu vois donc pour touche modernité boobu noonu sax il a fait appel à ce gosse là. pour wane ni kat xam nga non man. damay damay dama update sama bopp. gars yi naan brassage culturel quoi c'est un album que j'adore. brassage xam nga man génération yàlla dafa dogal man dama bokk si ñi nga xamante ni. Gasson moo tax ma bëgg rap quoi. man Gasson moo tax ma bëgg rap. man son deuxième album bëri nga cee son deuxième album laa laa laa bëgg rap. son yëg soog a nekk donc dañu amoon benn cassette bu xonk quoi sama benn tons tonton Assane moom moo ñu ko mayoon quoi maa ngi koy shout out de passage parce que moom aussi tonton Assane moom moo taxoon ma am albumu Daara ji School of Life. moo ko jëndoon mu indi ko parce que xam ne dama bëgg rap ma ko doon teg di ko cons quoi donc suñu nekk dañ doon déglu nekk jàngoro jamono ji ba nii may wax ak yow mën naa la jël sound bi A ba Z ma ma ma restitué loolu. lyrics yi donc c'est un gars un rappeur boo xam ne il nous a il a fait un très bon album man nag daf maa gastonisé ah. ñëpp ñëpp la gastonisé léegi nag saa woon gastonisé boobu <laughs> man boobu man moo ma moo moo ma dugg quoi. Eh, <laughs> yee man loolu daal. Mhm. non sincèrement j'aime bien bien j'aime bien cet album. mooy mooy lu mu ba tey dafa gastonisé ñëpp quoi. gaston est ku ko ku ko dul déglu. Mhm. public am lu gars di naan mhm. ah, dañuy faral naan génération bi lii la génération bi yàlla yàlla fa gaston mu bokk ci rare artistes yoo xam ne ni. toute génération confondue mhm. dañ koy gëm waaw léegi loolu la moo koy def ci artiste wala la moo def loolu la Gaston loolu loolu la moo ko may Gaston ci ñu particulariser le débat quoi Gaston la moo ko may loolu noonu. mënoo jàpp ni Gaston dafa dafa <laughs> boo ñun nag temps am nañ yaa moo facile quoi dafa dafa dafa dafa devancer woon gars yi parce que Gaston mooy artiste boo xam ne man dama koy wax yenn figure yu gars yi di xëccoo jamono jii. naan lii mooy lii lii mooy lii Gaston da ko doon def bu yàgg. yàgg na balaa ñu ciy toll da ngay da ngay foog ne sax. nga lan la wax parce que moom moom moom dafa mel ni moom il était trop en avant ci ci ci li mu doon def bu ñu fàtte tam il était trop contesté tamit. Gaston peut-être sax man loolu moo tax bu ñuy waxtaan ci góor ñu jox ko Gaston parce que c'est un artiste boo xam ne. malgré loolu sax il a résisté quoi. mais Gaston balaa muy def son bout de chemin. Mm-hmm. bul fàtte ni ay jamono. Mm-hmm. featuring yëpp moo daan téye refrain. Ah, loolu la ay son yu dul mm-hmm. jeex. Gaston moo daan téye refrain. balaa moo def suñu chemin. nañ leer nekk booy. dañoo xam nga gars yi jël ko yëkkati ko. waaw bi dafay dernier ah. couple boobu noonu. ah, ah nañ dafa tar dafa dafa dafa à chaque fois moom époque gason moom mooy artiste boo xam ne époque bu nekk ànd na ak moom quoi. moom amul amul style bu fi jàll te du ma ne Gaston période boobu génneewul dara. Ah ñëw fekk 2003 2007 voilà 2011 foog naa 16. voilà moom époque yi yëpp moom moom c'est bon peut-être xam naa du lii mooy last quand ah man ndox enfin c'est comme c'est comme si c'est non c'est ñuy daf ñuy daf ñuy kii loolu quoi. non je crois pas mais c'est comme si. loolu la bëgg a def si biir si xelu nit ñi quoi c'est comme si ça c'est son dernier man dama am pressentiment boobu waaw xëy na nag mën naa juum mais. dama am pressentiment boobu parce que mi ngi siy def comme bi nga xamante ni. Mhm. daanu ko woon def sincèrement. par rapport dëgg la Gaston daan na génne est-ce que jamono tamit moo laaj. non mais Gaston daan daan na génne projet ñëpp di ko déglu. mu mhm. ñibbi kaaw toog mu ñibbi toog waaw loolu loolu la di cons affaire bi après il il mais instant bi focus na si quoi c'est c'est ça c'est son c'est son truc quoi li ñu naan c'est son album à lui. man dama jàpp ni Gaston dafa génne album am quoi moom bi nga xam ne. waaw le titre en en dit long quoi le titre rek en dit long. bon c'est un pressentiment. non mën naa man espérons que du nekk la. mën naa ma mais mais en somme album bi ñi ko dégg yëpp amul kenn koo ci toogal mu ne. par exemple man man du ma ko du ma ko nëbba ah. dernière kii am bi mu génnee noonu. j'ai pas trop kiffé quoi mooy dernier dernier projet bi. alhamdulilah waaw j'ai pas. loolu j'ai pas trop avant dernier projet avant avant dernier bi j'ai pas j'avais pas kiffé noonu. mais bii bizarrement te bi ma déggee Gaston day génnee album dama ne ah Gaston te mu ñëw nekk fii tamit di def comme bële ko ah. mais bii même depuis premier son bi dama dama play tegaat mais yaa Gaston quoi. waa ah, coono la waaw i i i yàlla Gaston yàlla Gaston boo xam ne. même bu fekkee ni day adapté wu sax mais il reste lui. ci bind ci bind. ci diction bu leer bi ci waxin bu leer ak diction waxin yu leer yi tamit ay mm. expression yoo xam ne si propre à Gaston. waaw waaw la daam jargon boppam. jargon boppam du wax nga ne ah Gaston de diw lii dégg naa ko fii dégg naa ko fii tamit le Gaston fidèle au au numérologie dafa bëgg di ah, jouer ak spiritualité spiritualité am na fenn fu muy naan ah. dama lay rey dekki la sikar loolu la. kii wu ñaar fukk ak ñaar araf yi. waaw waaw gars yi xam nañ la lool. loolu nag pour ñu pour ñu dul comprendre mooy leen nag spirituel. Euh, spirituel bi waaw waaw laal na ko si suuf. waaw waaw moom moom day day faral su sa sonum sa la ko waxee. Ah. gastonise la mooy sama saawa ma ma gastonise. ay foog nga spécial non non sincèrement non waaw spécial char en tout cas xam nga lan laa ko dama ko naan merci. gaston moom man man dama ko naan merci. merci Baye jëwriñ ci masterpiece bi. jëwriñ la quoi jëwriñ non jëwriñ day def yëfu jëwriñ. jërëjëf loolu nag jëwriñ quoi voilà léegi léegi ba léegi ci lancé wu euh, euh, kii bi. mu tuddati euh, dañu servir loo xam ne ni am na benn benn kii public boo xam ne ni loolu ko bëgg style rap boobu noonu ñu am ci benn waaye boo xam ne bon dafa demoon kaaw mooy kaaw ba léegi yàgg na fa. Mm-hmm. peut-être dafa daa ñëw de temps en temps et cetera ñu kenn bii de suufi. Mm-hmm. bii de suufi tamit day xaw a laal tuuti spiritualité par rapport ak lu ñu wax ci garçon et cetera. Mm-hmm. waaw mu génnee benn album tudd ak ethnicity. ethnicity. yow loo ci loo ci loo ci loo ci retenir ci ci album boo ko noo analyser de façon bon globale. Mhm. vite en en trois cent soixante degrés. waaw ethnicité bon. africanité. Mhm. peut-être même même même même kii album bi sax. cover bi cover bi sax. tu sens l'Afrique waaw waaw bi et peut-être loolu la ñu bëggoon ci loolu la ñu bëggoon delloo peut-être mu ngi mu ngi fële. mu ngi moom su ma juumul Allemagne nekk ci. parce que Norvège Norvège Norvège Norvège def na fa àll ba foofu la ko defee mais tu tu sens que tu sens qu'il y a euh, boo déggee biti sax da nga xam ne lii ku ko te bon gëwuma mu nekk sénégalais quoi. peut-être il a dafa jël ay affaire fii mais jël nañ biti dafa bëri ay sonorités africaines yoo xam ne dañ ko ci samplé mm-hmm. waaw boobu dañ ko ci samplé peut-être loolu la ñuy jéem a indi maanaam te day rap anglais mm-hmm. wolof affaire yooyu noonu dugal parce que bii la suufi man c'est un boo xam ne man Facebook rek laa doon gis dama doon gis benn photo ay jamono benn photo black and white benn gaan bu sëgg ci micro yor kurus bi nga nii ah. photo boobu daf ma daf ma em daf daf ma neexoon dama ne woon ba download ko sax ñu ah. bind ci bii de Soufi ah. léegi nag benn bés euh, dista kii di mos na tëgg benn mooy kii di mënum tëgg fii. listen listen listen to beat yeah listen to beat léegi jour bi may invité pour ma ñëw jour bi yàlla dafa def bii de su fi. mu ñëwoon quoi waaw. may balancer sama bit xam nga rek sonorité africaine bi moom mu freestyle yu bëri ci biti. waaw après bi may ñibbee nag mu mu kii ma ci yoon bi ne ma yow foog ñu kii quoi parce que moo tax album bi bett ma bi ma koy déglu rek ma ne kii genre sonorité yi da koy yàgg nii loolu jabam la ay ay jabam la quoi donc donc bettu ma quoi mais nag maa ngi ko doo a dégg ni maa ngi doog a dégg ay produits parce que daaw ma déglu. waaw moom dafa daan balancé sur YouTube waaw mhm. parce que chaque année lu mu bon bon dina balancé benn ñaar. mais en somme en somme on a aimé. li ma ko gisee fële tam xam naa par exemple lan la ñuy indil. waaw on a aimé et puis ay fit hmm. surtout man man boobu mooy sama coup de ah, bi mu def moom ak gars yi waa fën na kër waaw waaw waaw fën na sama style waaw sama sama dafa dafa dafa mel ni da nga ci da nga ci bokk ñu bëri ci gis-gis hmm. da bokk ñu bëri gis-gis ci lool ci ci coup de cœur yi waaw man man nag beneen coup de cœur la enfin ñaari coup de cœur welcome to Europe Mm-hmm. xam nga mi ngi expliqué. en tant que bon xam nga moom il est. day day valse entre Sénégal ak gàmbi quoi. Mm-hmm. moom moom moom Sénégambien la. ok ok tu vois donc mu mu tukki. surtout en même temps di continuer di def euh, di def musique am ça c'est son sixième album si trompe pas album mais sixième projet mhm. xam nga entre mixtape EP ak bagage yooyu noonu man gis naa am na si son sax am na son sax mu koy mu ko mu koy énumérer quoi mooy genre bi ngiy wax en anglais di wax 2013 affaire yooyu di wax par date par date par la génnee ba ak si si si il est prolifique mais xam nga xëy na wax nañ ko si soposo bu bu bu jiitu bi da ngay am talent ba bëri mais tu fais pas de chiffre. Ah. mais c' est pas grave. Hmm. essentiel mooy le talent te moom il a un talent hmm. énorme il a le respect il sama premier coup de cœur wax naa ko welcome to Europe la deuxième bi c' est le de Popose. Hmm. parce que def na featuring ak Popose ak euh, les diwaan ji ak ñooy ñooñu. xam nga sound bi mu ànd ak Popose moom la ànd ak Aaro aussi quoi. Aaro Aaro Aaro mais le couplet de Popose am na benn instant muy wax ni. boo boo nangoo boo accepté sa démb quoi sa tey tey jii da nga koy mën a dund ci ni mu waree quoi. et c' est le purpose lyrical bi nga xam ne moom laa doon am ci extrait volume one bi quoi. am na beneen projet boo xam ne aussi purpose boobu na. sans parole de sage yooyu. voilà mais il a il a fait un couplet bu bu bu nice mais en somme j'adore bien xam nga le projet Ethnicity te dañu soxla genre yi quoi bu ñenn ñi nekkee seen i seeni seen i drill. monde trap li ñuy woowee world music. Hmm. mais dafa war a am ñoo xam ne nag dañ naan man lii laay def. Hmm. je fais du boom bap je le modernise di nga am benn yenn sonorité yu yu bees yi yu yu actuel yi mais ça reste du boom bap xam nga xëy na nu mu ga nu ko gasoon defee ci démb tey quoi. par exemple. fait, c'est ça, quoi. Okay. Voilà, mais, mais j'aime bien. En tout cas, bravo à, à Bill C'est okay. bien réfléchi, quoi. OK. léegi ñu jaar ci transition <laughs> wala daa am loo ciy dolli. <laughs> non nice. <laughs> bon ñu jaar ci transition bi quoi non tey moom tey tam c'est dafa gentil. seriously xaw ma li ñuy wax ci man ngi la xaw ma je sais pas. mais oui mais oui mais réew mi loolu la. waaw buñ ko yee de. mais dama buñ dama fi mag yi rek lañ nekk quoi. non mais exemple waaw léegi dañuy respect quoi. non parce que tamit delloo njukkal bi quoi. waaw xam nga foog ñu sa bon sargal. c'est normal honneur à eux quoi. parce que ñun ñëpp mun nañoo ñun ñuy toog fii nii. bokk na si ñoo xam ne ñoo ñoom ñoo tax. ñu bëgg hip hop ne ci ba tey ji nii ñuy ñëw di toog di ci waxtaan et cetera. voilà voilà léegi transition bi jógee ci mag ñi ñëw ci génération bii nii benn waay bu jógee ko Rufisque jógee ko authentique authentique soo ko déggee rek loolu noonu rek da ngaa ne yee kii c'est du vrai quoi mu génne benn album tuddee ko Capacoli Capacoli nag ci olof nag en du trop quoi. Hmm. xaw ma eh, xaw ma exactement lay signifier mais Youssou Ndour daal wooyoon na ko. c'est c'est quelque ah, quelque chose d'unique quoi voilà tu nga si benn mbir tu es unique yow yow loolu quoi. voilà léegi imagine ci authentici ci authenticité boobu noonu moom unique. Hmm. donc bu génnee dara saa yi loolu war na dóob bi. war na dóob. waaw bu génnee dara. <laughs> genre xam nga war na dóob mooy. le principe logique bi la xam nga tey dañu naan un hmm. un blaze un tour. day day day day day méngoo ak nit ki orientation mm-hmm. dañ koy faral di wax quoi. tey par parfois ak lan lay lay lay lay lay bu booboon. non ça ñu ngi authentique. boobu moo lay mën a tudd. da nga ne da nga ne war na da nga ne war na dóor. mais loolu question la wala affaire damay laaj rek. non non kii la nu mu tëree ci euh, rafet njort la quoi dama ne. Mhm. soo xoolee tur bi ak turam moom authentique Zeus. Ah. ak le vrai l'authentique. ak turu projet bi. Ah, ah. l'unicité. ak authenticité. waaw ah. soo leen boolee. Hmm. dafa war a jur lu dul quoi. waaw ah, loolu waaw. logique. waaw logique pour logique. mais logique boobu est-ce que moom. non gisuma logique boobu personnellement quoi. Ah, man j'ai été très très très déçu. par le par cappaacoli. par Capathio j'ai été très déçu sincèrement Capathio moom daf ma daf ma décevoir parce que Oran Liggs dafa nekk booy boo xamante ne ñun xam nañ ko quoi depuis ses débuts ñu ngi koy ñu ngi koy follow xam nga jaar na Citizen Mike jaar na Flow Up xam nga c'est un booy boo xamante ne il a il a le talent def na mixtape en 2017 tuddee ko recto verso nga sentir ni kii affaire bii nii quoi kii gàtt kii am na am na bagage bi quoi mais lan moo si des mais nag dans Capathio li kenn xamul kan mooy authentique il n'est pas et il n'est pas un dieu il n'est pas Zeus non plus parce que bu teyee ñu muy rab nga dégg Hakill hmm. Hakill influencé ko bu baax man je me demande sax am na benn genre muy rap en français je j'oublie même le titre je me demande lii est-ce que du Hakill la ko bind parce c'est les mêmes références en fait yi Hakill buy rap en français c'est les mêmes trucs nga déglu si yeneen son xam ne lu mel ne ay contigo nga ne mais lii est que du One Lyrical moo def sound bi tegg voix am xam nga après sometimes dans certaines références xam nga muy bind like dit ni muy bindee quoi après dama ne ana authenticité bi fii et ana geste bi aussi quoi ce tu vois j'ai été très dans l'ensemble j'ai léegi nag am na ay euh, naka lañ koy woowee y a des des étincelles ay yi featuring yi mu yi njëkk a génnee la euh, moom ak Omzo Dollar nice ak moom ak Mr Cage nice xam nga ak leçon à la vie à la mort moo tijji moo tijji projet bi. waaw intro bi waaw intro bi. parce que loolu moo nekkoon ci recto verso bi boo déglu intro bi da ngay xam ni noonu. ça c' est le authentique geste bi mu doon def ci recto verso bi mooy. authenticité bi ak loolu moo ko yokk sax. mais déception boo déglee intro bi. da nga naan mu xus luy ñëw ci ginnaaw dina dina dina nice. waaw ñi gën a dem sometime mu mbalax sometime muy way te mënul way authentique geste mënoo way arrête. sincèrement xam nga. Hmm. yooyu loolu la quoi genre. après da doo xam kii il se cherche c'est un album qu'il a sorti mais album bi ça parle de quoi. album bi lan la ñu bëgg a par rapport à cet album là on ne sait pas. Hmm. xamuñu man xameewu ma Zeus xameewu ma authentique gisuma. gisoo cappaacoli non waaw cappaacoli bi waaw ak. <laughs> non je suis très déçu ah sincèrement. donc ce qui veut dire mun nañu wax ni euh, Rufisque instant yi pour pour am kenn koo xam ne ni moom mooy. ah non quand même. ah man de gisaguma ku ko xam. koo xam ne ni Papa Sow tey mu ne ko baa ma dem tëdd nelaw. am naa koo xam ne ni moom mooy téye flambeau bi. fire flow ñii fa. waaw waaw du kapi waaw mais ñooñu. non bu ko bu ko yemalee si kër Ndiaye loola dëkk par extension. waaw mais le benn la benn même même même délimitation géographique. en fait ah, en fait <laughs> tey rek tey tey dama ci am benn benn anecdote quoi dama dugg benn benn benn place pour ay affaire yu ma doon job bu fekk fa benn benn booy quoi mais li ma toog yëpp authentique lay déglu après ma ne ko bon ma xam ne kii nag c'est c'est un inconditionné quoi dafa bëgg dafa bëgg authentique ma ne ko mais ma ne ko saa yi ngay déglu mu ne ma waaw ma ne ko mais albumam bi neexul <laughs> ne ma wëy dama foogoon man rek maa xalaat loolu quoi <laughs> mu ne sama artiste mais gisoo son yu njëkk yi laa nekk di déglu moom de son yi mu doon déglu yëpp bokkul ci album bi. ok te mais comme si man dama ko libéré quoi mu ne ma woy dama foogoon man rek maa xalaat loolu quoi. xam nga. Ah, ah. mu ne ma bi daf ci bëri woy quoi album bi dafa sa amu rab mu nekk fii di woy comme li nga wax rek booy bi loolu wax mu ne mënul woy quoi mu nekk fii di woy rek. xam nga donc man tamit li ma doon xalaat ma ne ah juste pour parce que su may wax damay damay nekkaat ci li possible wax rek mais album bi ñun. dama koy wax daa mel ni ñaari son yi nga xam ne yooyu la nit ñi gën a d'accord ci kii bi yooyu lay sànni. xaarloo ñu comme la woon comme la waaw yooyu sa sànni. xaarloo ñu ñu dugg ñu ñu ñi ma njëkk a déglu album bi dañ la naan mooy authentique intro bi rek a nice. Mm, waaw ñaar ñi ma ko njëkk a dégg yëpp loolu la ñaar intro bi rek. intro bi waaw intro bi déglu ko bon man tamit mun naa la j'ai eu la même impression ma ne mais authentique daa mel nii dafa et puis il était trop dans la quantité mais mënoon na tànn quoi tànn son yoo xam ne ñu ne ah lii la ah, ñu ne ah. bàyyi ñu génnee ko xam nga jarul ñu ñuy sonal ak ay quantité boo xam ne après nit ñi dañuy déglu di zappé donc ñu jël ñu jël benn affaire boo xam ne qualité bi la ñu indi et puis en parlant la qualité tamit mm-hmm. les mix waaw ah, eh, c'est xam nga il faut il faut il faut il faut une émission spéciale. waaw ñu wax si si mix yi. incha boobaa ñu woo yow woo yeneen yeneen ñi nga xam ne si mix la ñuy dox. yu yu qualité yi franchement. ñu ñu ñu defal gars yi ci taux quoi bokk quoi. parce que parce que dafa dafa down quoi dafa mel ni albumu blues quoi dafa dafa slow trop. par rapport ak mix yi amul amul dynamique amul dara. personnalité bokk na ci luy forger personnalité artiste. parce produit bu ngay génne parce que le produit là détail yooyu yëpp ci la bokk. ci la bokk les musique le mix et cetera. am na beneen étincelle ah maa ngi ko doon wax sànq bi may wax si album bi de Sophie mais c' est encore le couplet de Papa Sow. waaw ah, donc Papa tamit boo dégloo couplet bi si biir projet bi da ngay xam ne tamit ah Papa li mu doon wax 2011. Hmm. am na sama bu mu àndoon ak booy réew yi quoi. waaw ah. mu naan raba sama gox. dafa bon sans boobu booy defuñ fa dara quoi. mais boobu saa yu duggee couple bu teg rek da leen di wax ni nii la ñuy rabee quoi. nii ngeen war a rabee nii lii mooy mën rab quoi. Mhm. mais da ngay dégluwaat boobu sa si moom ak. Euh, sës mu ngi koy wanaat ne ko sooy. man de yàgg naa si bagage mais xamal ni ngalaju yi ma dese de boo ko yoroon au moins gars yi dinañ am si luñ d'accord surtout pour un premier album surtout pour un premier album un premier album dafa war a ñëw mu marqué bon ça mm. mixtape marqué woon na mais mm. album bi waroon na si gën a waaw surtout album dañuy dañuy jàpp ni y a plus de sérieux que yeneen type de projet quoi donc bon bu juste nag bon liggéey rek amul problème quoi. non authentique quoi on s'attend à quelque chose de waaw vu que tur bi rek man tur bi ça me plaît. waaw loolu noonu authentique geste. dafa ñaari o. waaw o. il

majorité bi yow dafa dafa entre guillemets dafa flop. Mhm. am na ci loo xam ne ay. naaj quoi ay étincelle voilà ay étincelle comme nu mu ko waxee. voilà léegi léegi Jéggi back to business. Jéggi Raay. <laughs> ay affaires yoo xam ne nii dafa toppalante. génn dañuy njëkkee ci benn bi. Magal Dia. Lom de daf fi benn benn benn. show bi la rek ah, dañ koy survolé quoi. waaw show bu dóor affaire bu nice. waaw yaa ngi ñu wuy si. waaw affaire bi day dundal artiste quoi. Ah. waaw yeneen koona yi. roy xool leen ci waa Medina quoi artiste bu wootee na gars yi dem ñu support ñu jàpp loolu mooy Iba parce que loolu noonu day delluwaat ci yéen gis nañ fi. sànq ngay waxal koona yi wala artistes non melomaan yi gars yi get artistes yi ñu dëkk ci koone ak artistes yi. Hmm. ñu naan kii suñu élément suñu doom la. Hmm. nañuy support nañuy jàpp. dañuy jàpp seen artiste mais lan moo tax waa Medina wax ak yeneen kóona yi est-ce que yeneen kóona yi artistes yi fa nekk ñu ngi liggéey comme El Jazz mu def pour jéem a fidéliser. non non xam xam nga tey. xam nga tey euh, un artiste. Mhm. un artiste. même bu dee euh, lu muy def. Mhm. taxu kaa kawe noonu noonu. Mhm. mais support bu muy yëg dafa mel jour tey bu nekk ci biir. terrain mais El Hadj kawewul non exemple laa lay joxe non dama lay joxe <laughs> damay wax ci benn affaire quoi juste un exemple. tey un jour le terrain muy football. Mhm. supporter am na lu ñuy yëngatoo. Mhm. moom bu mu daan def day def plus que sa plus que ça loolu dëgg la. léegi pareil ci hip hop dañ bu ñu supporter may la confiance. Mhm. yow lu nga daan def mun nga def plus que ça ba yow sax sa musique day jéggi frontière gis nañ ko ak i gars yoo xam ne ni seen i kono la ñu commencé. noonu noonu ba tey instant yi ñoo ñoo ñoo ngi wër àdduna bi quoi. mais nga may ma foofu mais souvent. waaw ah, ah. souvent d'où l'expression nul n'est prophète chez soi. souvent da ngay toj feneen sa waa Kóona doog a nangu am na ñu bëri tey boo toogee ak ñoom bu ñu lay raconté dañ la naan booy sama koñ de mooy commencé rab fu ma romb ñu saaga ma. ñu bëri ñu bëri. waa région yi nii ay kër gi ay kila ay gars yu bëri. bi leen masse bi commencé découvrir nii la seen dëkk commencé taxaw naan wéy ñun ñoo ko am mais la plupart d'entre eux booy rab sa koñ nii. ay gis gars yi dañ lay surtout sax sa. mais mais mais mais lu ngay wax. non non foofu laay ñëw rek damay ah, ah. peut-être. moom dafa am loo xam ne. mais El Hadj deful cinq ans de carrière de. Ah, waaw loolu lay wax nii <laughs> waaw waaw waaw. El Hadj deful cinq ans de ah yow a réussi à. <laughs> loolu tamit loolu ah, mooy lu ñuy ci formule bi quoi. mais bon new bi la ci formule bi la quoi des fois tamit mun nañ ne bon man je pense pas que waa waa Saïd yi la. mais gars yi artistes yi nañ liggéey loolu parce que man souvent artistes yi dañuy ñëw studio loolu laa leen yëkk conseillé. des fois sax ma ñëw nga ñëw ñaari yoon ñetti yoo ma ne yow foo dëkk nga ne ma diw ma ne la day baax sa waa kii si sa ñu santir ni yow yëg nga leen quoi. même fin bi sax nga maye su turu kii. ma loolu ma loolu politique la. ma ne rappeur da ngay politique. bul foog ne ni affaire yi da ngay politique dama leen koy conseillé quoi représenting bi. El Diaz nag boo xoolee day def loolu ba nga xam ne après waa Medina Ram dañ ciy jàpp. mais fii bëri na artistes yoo xam ne man soo ma waxul ni fii lañ dëkk wala soo ma waxul ni lii la ñuy kii. saa yi donc loolu il faut il faut il faut. Dibdose fa la def. xaw ma Ziguinchor xaw ma Thiaroye xaw ma foo foo xamee ni kaayam la da nga dégg si son. kan ci Doudou da nga dégg si son moom. c'est un exemple typique doo ko dégg si son par exemple doo xamoo fu mu dëkk non sam benn grand sam benn grand <laughs> benn grand kii. Doudou euh, ah. boo koy day c'est comme si kii. non man sam benn grand man nag nii nii nii pour man ne am na benn boy bu nekk KM. bu mun na rab et mais man noonu laa noonu bi am si El Jazz par exemple ak ñeneen ñu bëri ñi nga xamante ne seen i base dañ leen di topp. mooy da ngay représenter sa base quoi moment bi ngay tàmbali naan Medina laa dëkk je suis fier de Medina amaana sax waa Medina yi fieruñ ci yow. comme mm-hmm. li Sirdam do amaana ñoom. Mm-hmm. moment boobu bi ngay tàmbali. parce que dafa goo say preuve il faut les convaincre ñoom. da nga leen di représenter. nga leen di convaincre El Jazz il a il a bossé ça bi mu demee flow doon mbooloo. après bi mu génnee ci flow bi dafa continuer di job fan base. Mm-hmm. El day def ay ay set setal. waaw ah. day def ay œuvre sociale ci saa yi dem. waaw ah, période corona bi rek. te ah. buy naan ndox. bismillah bi Medina la. <laughs> et ça très important maanaam nga dëkk si benn dëkk nga fier d'abord yow si fi nga dëkk. di ko fësal looloo waral. Euh, El Diaz public bi nga xam dafay teew noonu maanaam benn mélomane bu demul si concert El Diaz par exemple man concert El Diaz bu ma fekk Ziguinchor. ci événement li ma fa undercover undercover show mais man bi ma gisee image yi daw dama ko jël si saa si ma partagé ko ma share ko. ma ko. ko si ndax ah. ça va au delà. ak Medina bi c'est le hip hop. Mm. bi mooy mooy mooy am ndam loolu. léegi nag ce qu'il fait dans le contenu tey jii nii si ay controverse à discussion. Mm. day rabab day mbala. loolu moom bu ñuy duggee si projet bi wax mais l' événement bi mu bi mu def xam nga ah euh, Ibamar sincèrement chapeau affaire boobu bu naaj sa ngi noonu. te na continuer si wéy boobu quoi. et projet bi projet bi tamit projet bi. projet bi waaw projet bi. projet bi man. <laughs> le tey laa yëngal fépp. waaw tey laa yëngal fépp. yëngal la. am na am na yu mu yëngal <laughs> am na si ay son yu mu yëngal. man El Diaz on dañuy dañuy waxtaan quoi de temps à autre. Mm. man li ma koy wax nii loolu la ñuy waxante il défend nag ses positions man j'aime bien le fait moom mi ngi assumer. Mm-hmm. moom tey jii nii soo ko nee soo sa saan bii mbalax la. ah la moom am na fekk damay wax damay rab damay mbalax waaw yàq mu ne mu ne waaw mu ne mu ne waaw après it danaa maa tey ok mais saan benn hip hop la waaw boobu nangu naa hip hop la donc jëlal li nga li nga moom keneen nag mu jël leneen quoi est-ce que tu vois un peu donc man su ma dégloo projet bi saan bu mel ni Winner ama Winner Sane boobu daf ma neex quoi sincèrement. te Elias il a fait des efforts dans l'écriture. non si moom xam nga projet bii nii il a fait beaucoup d'efforts maanaam da ngay xam ni projet bu yàgg la quoi yàgg na ko yàgg na ko waar. et c'est dafa tombé si euh, ci moment bu baax bi moment bi muy war a dem. fële euh, Medina ci la génnee san ci la génnee projet bi génnee woon son bu mel ni Medina. featuring ak gars yi Medina wane representing xam nga après mu génnee leen sànq mbalax boobu noonu Bama <laughs> joxoo ma lay joxoo loolu waa Medina yëpp dañ koy jël def ko seen son seen hymne. te pourtant son boobu da ci par rapport ak plume bi dafa foofu son si. waaw ah, boobu dafa enfin ah, bon yow la dul neex. non si si je note le projet dinaa ne c'est assez bien quoi. ok c'est assez bien. c'est pas fameux. Ah. mais c'est assez bien quand même quoi. mën nañu ko mën nañu acceptable quoi. y a du tout ah. y a du conseil ah. voilà ah, y a du conseil. waaw xalaat bi ah c'est du fourre-tout waaw waaw y a si même si lu muy dénoncé si conscient bi loolu la def ci clip bi. c'est am <laughs> ay ñàkk xam nga jigéen yi léegi ñii. mais loolu la mais loolu la gars yi bu bu lu may wax. mais bul xool lu may def mais déglu. voilà même si lu muy dénoncé si conscience loolu lay def <laughs> affaire bu bizarre la. Eh, bul xool sama paradoxal quoi wala fi mais mais euh. bon mais bon bi man ma man. man moom fii laa toog wax naa ko ci benn plateau nga wax ma ne la jàppee ma ko rappeur. <laughs> mais après ba ma dégluwee projet bi. jour bu mu génnee laa ma déglu après. non dafa dafa senti kii yaa kii bi daf ma neex quoi. daf ma neex même si dama bëggoon son boobu am benn refrain bu nit ñi yëpp di jàpp. am su ma waxee Medina doo am loo jàpp. waaw waaw mais son genre son te représente yooyu dafa war a am benn refrain boo xam ne. dañ koy jàpp day ñëwaat day ñëwaat day ñëwaat après nit di ko jàpp quoi. bi ma ko déglee loolu laa ma ne oh Dia dafa waroon def benn refrain buy ñëwaat chaque fois. comme ça nit ñi di ko jàpp quoi man solo dafa ma neex quoi parce que représente dafa nice bon. song ay te qualité mix bi dafa cool ah. loolu tamit dañ si insister. la bokk ci la bokk mais c'est c'est keef xam nga keef tamit gain. dafa bokk dafa bokk si si Sénégal ñi nga xamante ne en tout si hip bi ñun ñi ñu am quoi. ñi ko fi dàq si la bokk quoi. si affaire de mix ak master quoi dafa bokk si ñi fi dàq. tukki na de gaa gaa ñuy jooy temps waaw mais mi ngi leen koy coow voilà depuis Ohio. mais daa dem nag. non sol non sol non sol da ngaa liggéey t'as beaucoup fait pour le hip hop galsen waaw non sol <laughs> by way ci même même lancé bi am na beneen projet bu jógee foofu. Mhm. rap or. rap or waaw Paku benn boy. yàgg nañ ko xaar nag. Paku gars yi sax dañ naan ne Paku man amoon na ay bro yoo xam ne dañ naan ne wax ni Paku lan lay toog jéegiraay ba léegi quoi mu ngi quitté foofu dem feneen et cetera mm. parce que moo amoon ay série de freestyle yu mu daan defee jamono affaire xawoon na marché dox tuuti. gars yi commencé mais Paco lan lay xaar fi gars yi ñu génne ñeneen ñi moom mu toog rek. Hmm. mais lu gaa yi nag yàggu ba yàggu bawul dara quoi bawul dara waaw yàlla def na mu. génne gëm-gëm du faatu. waaw gëm-gëm du faatu. <laughs> yéen gëm-gëm du na waaw. Ah. <laughs> génne na benn projet boo xam ne tuddee ko rapport projet bu bu bu bu pas mal. ah album waaw ah. benn album waaw album bu bu pas mal. album bi waaw waaw waaw waaw waaw. Hmm. yow soo pas mal boo ci d'accord loolu loo ci wax kon. non aw ma aw ma ma aw ma ci problème quoi. Ah, bon xam nga des fois gars yi koy wax plus la déception et plus la déception sera grande. grande waaw des fois fois yooyu daf ñuy dal ak ay artistes. Ah, ñu may ñu benn affaire ak ñu bari ñu bari sax soit ñu may ñu benn affaire nga ni kii après di xaar. di ko ah, xaar di ko xaar dal lañu ci benn ponkal après nañ ko. waaw <laughs> xam nga après nga affaire bi mais. dama koy wax man souvent Kogo bi daf ma doon frappé bu baax quoi parce que après Kogo dama ko doon gisaat chaque fois. ci ci ci toile da ngay da mais Kogo indiroon en erreur waa waa hip hop Galsen Oats. ok parce que mun naa di. ba gars jàpp ni génn na quoi génn waaw ah. parce que en fait le truc mooy dafa waroon génn a mars mm. mois de mars 5 mars 2021 la waroon a génn mm-hmm. mooy waroon nekk sortie officielle bi léegi nag avec les événements de mars. Euh, on se rappelle am nga émeutes yi amoon ak moo leeg ñu ne bon hmm. voilà ne ñu ñoom ñu ne nañ aj affaire bi moo ñu aj ko ba ñu bëttal ko quoi dañ ko bëttal moo tax ils ont waaw loolu moo indiwoon nit ñi euh, affaire ñi nga xam ne suivre du ma wax ñëpp parce que <laughs> si tu suis tu sais que ni génn. génn tu sais que ni reporté nañ ko mais boo suivre nag da def say oise nga bind turam noonu. ok ok loolu ay caaxaan. waaw loolu. <laughs> li si dem naan ay caaxaan képp la. ay caaxaan képp la. <laughs> ay mais ah Pago benn boy c'est un c'est un rappeur très talentueux moom quand même Kër Masar la dëkk. waaw ah, moom Kër Masar waaw kay waaw waaw. moom waree ni moom moom fa la dëkk. <laughs> Eh, xam nga waa Jégra yi ils font de bons trucs ah après Pago Brise nga am. Pago benn boy ak El Jazz quoi. xam ni dans la logique projet yi. xam nga am na qualité bu ci nekk quoi techniquement y la qualité. et Pago benn boy aussi il a il a fait bon projet. man mm-hmm. j'apprécie quoi. mais man j'aime bien son euh, projet. lépp ngir hip hop ce son là. dama ah. ko bëgg junju. mais mais na wàññi woy yi mais mais na wàññi woy yi na wàññi woy yi mais keroog maa ngi doon tooñ benn waaye ci fi fi ma wanna love you. <laughs> wanna love you boobu <laughs> xaw ma kan mooy. kan mooy def loolu gars yi jamono ji quoi man je comprends pas. projet mais du foofu mais léegi rapport yi saa yu ñu génnee projet def force faaw ñu forcé way bi. faaw ñu forcé somtime mbalaxaale. amus paa bi lan mooy problème bi ak loolu. lan la dañoo bëgg ay vues dañu international. mbalax bi mooy. loolu rumba rumba. loolu wax mais c'est extra li waay naan c'est extraordinaire mais loolu loolu daal su ma su ma amee lu ma lu may lu may lu may critiquer par rapport à ce projet là loolu la c'est ce son là Wanna Love You bi ak way bi muy forcé def na ko benn si benn son mu jàll ko quoi. xam nga believe in you. Mm. boobu xam nga laal na. posté mais lu ma manqué tamit soo rëf nice na quoi ak nu mu ko woyee nii genre. lu ma manqué boobu la invité kan. ki la ak euh, Leuz léegi nooy invité si mu nekk waykat. certifié. yow nga ne da ngay woy à sa place quoi wala nga ne da ngay woyandoo moom c'est quoi. non daa da dafa doon war ne waa ji man da nga ma jàngaloo maa ngi nii est-ce que mu xoolal. Hmm. <laughs> ci son lañ ñu koy wane. kon nag woon na jàng man Pago nag woon na jàng. mais Sobra fan lay Sobra lëz mën na way wane na ko lëz dañ koy lëz dañ koy woo ci son moom dañ koy woo ci son pour mu way. sëriñ waaw boo ko woo ci son da nga ko woo pour mu way moom sax euh, aussi génnee na benn benn trilogie trois sons. xam nga affaire bi mu def euh, remix moom ak euh, professeur ak euh, Baye Mike ak yeneen ñaari son quoi c'est c'est son contributeur bon bëriwul communication quand même. bokkul ak seen vague bi ñu demoon musique. yeah bi ñu demee mais très récemment génnee na génnee na aussi trois sons quoi vite fait xam naa pour tenir en haleine son public la. parce que moom aussi depuis prescription bi. xam nga gën na génne. c'est un bon chanteur quoi Pepsi Pepsi. Ah, Pepsi defu Pepsi la mais son projet quoi. Ah, prescription la gëj a. ah yéen c'est que prescription bi nag tamit gars yi attente bi dafa kii woon te convaincre loon public bi te est-ce que loolu moo taxoon mu xawoon kii tuuti. Ah, position bi ak lëz bu ñu xamoon quoi ah, waaw rek. <laughs> mais bi ah ah, ah tey mooy mooy loolu quoi. waaw Paco benn booy waaw. Paco benn boy non na wàññi wëy yi rek. ah yi ah yow loolu moo la ciy déranger. non quoi. mais mais mais soo daf ci am benn benn kii boo xam ne nii man daf ba ma kii mooy euh, keroog sax maa ngi koy wax benn waaye ci Facebook bi su doon Bouchra. muy naan sénégalais xaw ma lan dañoo am xam-xam ci lépp et cetera. di ko sénégalais yi mais Paco loolu résumé na lépp ah. nee na ko boobu def na ko def na ko clip je pense. boobu dafa résumé lépp dafa résumé lépp quoi. di ko sénégalais waaw affaire bi nice na trop man man j'ai beaucoup apprécié le projet de Paco. waaw baa dewee ñi dem ci beneen beneen beneen rookie moom mun nañ leen wooyu rookie beneen booy yoo xam ne Paco sax du booy parce que xaw na kii tuuti. Paco benn coup de feu. gën moor. waaw. waaw gën moor. loolu nag <laughs> d'après d'après ñenn ñi loolu na si na waaw d'après ñenn ñi gars yi nee nañ c'est l'un des artistes les plus cultivés de sa génération quoi d'après ñenn ñi quoi. bon ñu toll ak at. waaw ah, ndax moo tax de sa génération moo tax j'ai bien précisé. génération wu at wala génération wu rap. génération wu rap su ñu naan génération parce que yenn dugg. commencé no benn mbir ci benn période. amul mun ngeen bañoo toll ay at ngeen bokk génération. waaw hmm. ah, loolu laay wax nag. waaw léegi génération laay wax ma. génération rap. rap waaw. ok d' accord d' accord en tout cas il est cultivé na si doom wax ba pare ma wax. waaw bon. coup de feu mais dal nañu wala dal non dal na dal na non non non kuy dal na. am na victime non kuy dal na. am nañ victime am na victime. moom yi. waaw moom laa am na victime quoi <laughs> dal na leen. dal na dal na quoi dal dal na dans la mesure bi bi projet bi génnee maanaam gars yi tout le monde wala ñi nga xam ne bëgg nañu rap ah ñëpp ko apprécier. waaw et puis il a réussi benn affaire quoi maanaam da nga gis ñoo xam ne ñoom démb lañ quoi ñoom dañoo doon suivre artistes yi depuis démb yàgg na ñooñu ils ont aimé ak ñi nga xam ne ce sont ses contemporains ñi nga xam ne moom ak ñoo bokk jamono ñooñu tam ils ont ils ñoom sax dañuy wax ci gën moom. da toog di wax ak ñoom ñu naan la gën moom donc dal na quoi. Mm. et puis tamit man man nag sama coup kër cœur mooy mooy mooy. mais comme tu waaw bi bi mu njëkk a génnee quoi. waaw waaw WWTP. E voilà te bonus track la de. waaw bonus bonus track bi man moo ma gënal. Ah. bonus track bi moo ma gënal. bonus track yi day bi daax plat de <laughs> dama jàpp ni tamit euh, les les autres sont ne pa pas à la hauteur du du bonus track man loolu la jàpp. est-ce que est-ce que il s'est il s'est pas rendu compte de ça ah, ah. moo tax mu jël son boobu noonu. waaw clip ko. waaw pour mu piloter projet bi gars yi mun a conseiller yeneen son yi ci des. waaw waaw mun waaw mun naa am ah mun naa am dafa dóor ba pare gars yi ne ko bii moom bii moo gën a dóob indi ko quoi mais man dama jàpp ne boobu moo gën a dóob boobu boobu son boobu la ñu la ñu la ñu la ñu gën a gis et puis tamit beneen affaire mooy mooy mooy mooy ses références raar na jamono ji bon am na nag bëri na fi de. waaw bëri na fi moom dañ koy wax artistes culture la teew fi. waaw culture la teew fi de. <laughs> waaye nag raaru fi. waaw xam nga <laughs> raaru fi tamit. waaw. les tajisin la xaw ma ndax gars yi ak leen dégg ay référence yi ñuy def gars yi culturellement c'est c'est bon bu fekkee ni loolu moo tax ñu nangu ni culture am na sincèrement c'est c'est c'est beneen niveau la quoi mm-hmm. am na fii les Omzo Dollar tamit mm-hmm. bu loo ko bañ bañ da ngay nangu le gars il fait des yoo xam ne des fois nga daw outil livre naan nii quoi li mu wax la culture quoi voilà voilà loolu am na te tamit bon naturellement nit ku nekk si sa univers mm-hmm. xam nga tey menuisier tey bu doon rap di wax yenn man mus naa mus naa prise son benn waajoo xam ne ma laaj ko ay affaire mu ne ma en fait lii dama dama nekkoon vacance ma dem def journée maçon parce que dafa doon utiliser ay expression yoo xam ne xaw ma ko quoi mu ne ma lii maçon ñuy wax lii lii mais loolu culture la. Mhm. culture la waaw ah, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est pas parce dafa dañoo wax Rosa Parks rek nga ne waaw mais am na koo xam ne dans son univers moom day wax affaire yoo xam ne yow xamoo ko. te mun naa ne Gunvor il est dans son univers parce que histoire lay def à l'université donc. donc bu waxee Rosa parce que tamit booy rap yow li ngay dund. wala dama bëri coow ma tañ orienté ma. voilà li ngay li ngay dund noonu ngay rap quoi donc donc loolu loolu dafa naay sax day wane ni déjà tamit jàng baax na trop des xam nga ci affaire bi. des daal. bari yow <laughs> mos na wax lool bari yow mos na wax lool nee leen daal la rëccu tax jàngam soriwul parce que dina ko noo aider lu bëri ci hip hop. waaw loolu ah, mais bon on peut être autodidacte tamit de mën nga sa jàng sa jàng mën na bañ a sori ci ci école yi mais nga dem jàngale sa bopp quoi. Ah, waaw waaw Gasson comme Gasson par rapport ak Gasson xam nga parce que Gasson nee na moom am na am na yu bëri yoo xam ne nii bu muy déglu Sidy Lamine Niass. ci la koy inspiré. diine ak jamono genre fa demee noonu quoi. xam ak tamit dafa dem di gëstu moo tax des fois nga gis mu lim benn affaire tudd benn affaire boo xam ah, la meilleure expérience. ci ci ci kii quoi ci ci sàkku xam-xam. genre demee noonu quoi. mais en somme moom il nous a sorti un un un un bon projet. le 26 et venu à son heure tamit parce que. dañoo sonnoon suñu noppi dañoo sonnoon ci yenn novembre la ko génnee quoi le 26 novembre si la capaa génn bu Zeus bu doon wax sànq. ak taal wi tamit si la génn. taal bi gis ne ñee ils ont fait beaucoup plus de pub. ñoo ñoo ñoo ëpp promotion. Mm. mais projet bi gën moom bi génnee defal na boppam promo quoi. cest à bu loolu la. rek nga dëgg parce que man en fait tax na moor gën moor déjà annoncé wul trop. annoncé wul trop bagage bi c'est à quelques jours rek ay cinq jours yooyu noonu si la si la wax ni day génne soo EP quoi. xam nga euh, titre yooyu noonu six titre yooyu noonu bon bonus track bi mooy mooy welcome to the party mais bi mu dugg see big drip rek commencé. big drip ah? waaw di di gën gars mu ne moom day day dóor ay coup de feu xam nga mais dommages collatéraux day day bëri quoi mu ne moom de benn góonam day tiire mu laal ñu bëri imaginer bu ko doon def benn benn ça ça aussi ça de ego trip la pour bañ a génn ci gën moo raam mm-hmm. man genre il a quelque chose quoi. parce que parce que li mu def bon. juste damay dugg ci beneen son son bi annoncé show of the year. Mhm. loolu loolu c' est extraordinaire. problème c' est la mer rek nekk euh, euh, euh, koo xam ne on vient de découvrir déjà nga bokk son ak ñooñu mais sa couple bu dalee rek. ñëpp ku déglu son bi rek gën moor it a impressionné quoi. Eh, eh, man damay wax si gën moor. waaw waaw so <laughs> je disais que. booy bi eh, le 26 novembre ba nii nii nii lui c' la merveille quoi. xam nga et c' est flow up flow up c' est c' flow up xam nga boobu dafa mën rap genre c' est projet boo dafa ñëw mu rap. Mm-hmm. loolu la nekk fi di sonal boppam si yenn yu booy di def di woyant yooyu dafa wane ni man rappeur laa je rap te nag si beat yëpp ah. ah xam nga style am na loo fi beat bi am na euh, euh, trap am na surtout drill bi mu tolloo te drill bi tem na si. Ah, ah, drill bi ego trip na si. Hmm. benn featuring la am muy moom ak cap xam nga bu bu bu bu kër. beneen talent waaye les talentueux mais comme lii. Euh, quatre personne ñoo intervenir si si projet bi quoi li li di wax si chronique bi quatre personnes ñu game bi so <laughs> loolu la quoi c'est un <laughs> bon projet non j'adore na léegi le son maandute j'aime bien quoi maandute surtout ak euh, mhm. sample euh, humoriste humoriste historien boobu mhm. noonu quoi mu mu use sax Seydou Abacha Seydou Abacha xam nga ça ànd naa tamit da wan ni kii hmm. xam nga culture sa cultiver nekkul rek ngay lire bouquin quoi. nekkul rek ngay toog di jàng say. tijji sa machine di lire sa cours. voyager rek sa cultiver c'est même. boo nga pratiquer benn internet bii nii internet bii nii. yaa yaa beaucoup de culture là-dedans tey nii la fait nga déglu benn waay muy def ay références ci ay manga. Mm-hmm. xam nga ay bande dessinée. Ah. Amzo daaw da koy def lu ak yeneen booy ah, ay. Akatsuki lan mooy li cooy mais loolu c'est une c'est une forme mais loolu am na góor gën a garaaw kii da ko doon def. Euh, Diabolo Allensi Diabolo Allensi quoi. xam <laughs> nga parce que loolu obi la woon si moom ah, quoi ah. yooyu noonu. après référence yi bu ñu ñëw rek day am ñoo xamante ne bu ñu ko déggee da leen di jaaxal. dañuy dem ñu ñu gëstu ji ko. et quand un rappeur avec de l'âge de Gun Mor mu rap. Hmm. ñu ko mag fuuf. dem di xooli kii li muy wax ni fa la ko jëlee rek ça c' est déjà un plus quoi donc il a fait un très bon un très bon taf quoi léegi beneen beneen waaye boo xam ne ñoo bokk génération taal bi taal bi ñoom ñaar ñoo bokk génération c' est vrai waaw moom Thiès waaw taal bi lees wax na ji yoon <laughs> waaw non lees lees wax na lees wax na il a parlé ah moom tamit c' est il se veut parolier quoi moom taal bi ça veut parler même bit yu muy sax day indi bit yoo xam ne dafay ñëw pour wax waa gars yi di ko déglu genre xam naa il se dit que ni moom surement il a le talent d'un lyriciste dafa un lyriciste un très grand lyriciste mais day bind ko day def li ñuy woowee aspiré voilà bi am na ay image quoi man bëgg di wax punchline hmm. c'est très réducteur quoi c'est juste très réducteur mais moom aussi j'ai j'ai bien aimé son son son projet ah ak euh, communication bu mu bu mu def avant projet bi surtout le son tracklist xam nga bi mu génnee tracklist bi sound bu nekk mu feeñ ak conception vidéo bi ça j'ai black and white ak Mr Cash Mr Cash daa mel jamono boobu mu fit ah waaw ah, c'est la révélation <laughs> mais aussi son featuring avec Striker man Striker c'est Guinée Conakry bii waa ji mën na rap. Mhm. trop découvrir naa ko y' a quelques mois quoi mais bi ma ko déggee mu rab ci si projet taal bi ba jàpp taal bi fete ko fete yu métti. ah dégg nga. daf ko fete fete yu métti. xam nga ne ko nag saa yi daa soo di diis. waaw dañuy siis rek ah, dinañ saa Sénégal la Sénégal la affaire baa ngi Guinée rab baa ngi Guinée maanaam. Ah, sérieusement dafa universel sax. waaye c'est un kicker quoi c'est un moom moom day ñëw mu rab il fait phase yooyu dégguma pël mais day rab nga xam ni kii dafa mën a rab quoi. donc euh, donc taal bi bof j'aime bien quoi il a il a bien bossé quoi il a bien bossé. Eh, sama coup de cœur euh, outro la quand même ah. outro bi ñuy def jaar jaaram et tout quoi. waaw eh. yow taal bi yow yaa ngi Cees wala yaa ngi fii. waaw bon pas impressionné quoi mais dama dama bon. il peut mieux faire quoi. waaw il peut il peut mieux faire et puis tamit taal bi dafa am lu mu exploité wul ba vocal waaw man je di pas qu'il na ki a un bon timbre vocal parce que timbre vocal xam nga souvent sénégalais dañ koy wax baat bi dafa sew mais rab waxuñ fenn ni baat dafa war a sew wala dafa war a diis pour nga mais atu bi mooy nga xam yow sa baat noo koy utiliser nga xam ne yow sa voix instrument. mais baat gis benn baat gën kaa sew. waaw mais parce que parce que bu fekkee ni loolu la kon ku fi yor baat bu diis noonu ngay rapé ah kon kon mais man dama man dama man je te taal bi man su doon maay moom dinaa jéem a liggéey loolu ko xam parce que tamit am benn timbre vocal mooy am sa xam sa timbre vocal mooy xam ci ban genre beat laa koy laa koy dugal. xam nga euh, keroog daan naa daan naa wax ak sam benn sam benn waay il m'a parlé de li mu seetaan ci Drake les ingénieurs de son par exemple ils savent que Drake sa voix dafa dafa dem ci aiguille. ingénieurs yi bu ñuy jéem a perfectionné taaj bitu Drake yi ils ont ñoom seen bit yi bitu Drake yi dañuy wàccee aigu yi nee nañ ça a été beaucoup contre controversé foofu parce que dañuy wàccee aigu yi dem ci bru yi parce que pour jox place. waaw waaw Drake xam nga am na ay controverse ah, voilà voilà am na ay controverse entre technique technicien de son mais fréquence yi gars yi bu ñu wàccee mais après quand Drake buy rap affaire day day jàll donc loolu tamit artistes yi bu ñu jàpp ni jox ma bit rek nga jox la bit nga teg ci la quoi hmm. liggéey bu ñu war a def la gars yi bu ñu la waxee ay ñoom Beyoncé du ñuy def ba xam seen ba xam seen seen auteur ba xam fan am na bit yoo am na son yoo xam ne boo leen boo koy joué ñu ne la non wàccal fii du ma fi dem hmm. que xam nañ ni mënuñ ko duñ fa dem donc loolu tam artistes yi day baax ñu liggéey ci loolu quoi. Mhm. waaw jàng si loolu waaw ñu wax naa. waaw lees wax na na léegi des Thiès ba tey ah. Big Dares waaw Big Dares. ngi dem xam ñu tënk rek. <laughs> dañ bàyyi seen doom waa ñu Big Dares. <laughs> te dem mais mais mais <laughs> man big big daat bu génneewul lu naay ci laa si sawar wax. <laughs> mais daa nga mi ngi génne lu naay. big daat li ñuy xaar ci moom moom chaque fois mooy mu naay si. parce que loolu bon c' est. <coughs> <coughs> moo ñu ko ma mun xaw ma benn son big daat bu boo xam ne mos naa ko déglu ni lii naay sul. Mm-hmm. xëy na daa bëreegul son. waaw daa <laughs> daa naaj non wala waga wagalu bi moo bëri. <laughs> mais plume baa ngi waaw non non c' est bu ñuy wax big big daal on parle pas de on parle pas de plume quoi mais bii ça et puis finaliste flow la. xam nga. go support Thiès go support. yeah yeah non Thiès Thiès Thiès Thiès. kay xam ngeen ñaari doom foofu noonu. go support te big daal moom sincèrement man aw ma lu ma jeex dama ko déglu man bon. ah prise son bi tamit. <laughs> big daan kon nag dañoo doyal ci son yi nag son yi dañ cee doyal quoi da ngay def projet bu mag jox jaam <laughs> oh, oh, waaw oh, loolu mooy sas bi. waaw bu ma si actualisé ma xool. ah bisimilah. foofu wax quoi. non xam nga le truc mooy sax dañuy tënk quoi. Ah. mais sincèrement ce qui m'a plu mooy euh, euh, disons il a la plume ñun wax nañ ko. muy man ak ñeneen wax nañ yàgg nañu wax Big Daddy si Big Daddy moment boobu fëllagul sa amaana sax génneegul ay son xamoon nañu jàpp boobu si moom ak plume bi mais quand un grand comme euh, Gaston ak niñ ko xamee ci bind niñ ko xamee ci rab ak toll dayo bi mu am ci hip hop mu mu gis waaye mu ne ko soo yow nangul nañ la xam nga nangul nañ la quoi affaire bi. yaa ngi moom yow respecte la loolu loolu sas la si moom. quoi léegi nag li ngay wax nii man tamit loolu laa ngay wax dama ko naan baal ay son yii nii yomb mais. projet bi projet bi na ñëw. Ah. am naa si njort bu rafet daal. <laughs> si naan waaw war yóbbante maa ah, loolu moom dafa garaaw. waaw loolu dafa garaaw plateau bi ak bés def na benn couple bu nice foofu noonu. mais Elzo nag moom sincèrement. am nga des fois booy football ku mun football da ngay mun football fekkee bu nga mun football. booy booy li ngeen naan jukko day wàlle. loolu la booy raboo ku mun rab da mun a rab. te bii mooy deux fois ñoom ñaar ñoom ñaar ñuy def fit nga bii mooy deux fois ñi ñoom ñaar ñuy def fit waaw parce que defoon nañ fit si projet ak bés bi mm-hmm. mission commando. ok sans bu bu bu bu comme ni yaa kicking ah. mais li ma doon wax li ma bëggoon wax léegi mooy Elzo sincèrement sa guerre avec Dip ça me plaît quoi <laughs> parce que subliminal pit m mu koy sànni <laughs> instant bii nii ah non I like I like te xam nga tamit euh, ak projet euh, disons concerto plateau bi aussi xam nga ah. moo ngi cool day nelaw day nelaw day c'est un dormeur quoi la ne mën na nelaw dix mois après en deux mois mu ñëw def ay éclat après demaat yoonam quoi mais il faut danaa nag xam nga mu surtout l'année tamit mu ñuy mu ñuy rek présent quoi mu eh, présent yee Elzo dégg nga rek gars yi ne la nga présent te loolu lay dëgg sax non taxul sax moom taxul yee mais mais mais gars seen dafa am gars yi dañuy sonn ci ay son ci ay lii et cetera présence euh, internet si yem yi et cetera mais dafa am benn boobu boo xam ne bon moom la ñuy tëjee sax quoi man man j'aime bien swagam le fait muy topp même des fois day def affaire yoo xam ne nii c'est extravagant mais man j'aime bien parce que loolu si ça l'artiste muy kaw muy di from Pikine ngeen mën mm-hmm. son bandi bi waaw moom bandi la waaw moom moo waga la woon après mu nekk bandi mais xam nga Big Darex si ak deuxième cas bi nee na ak tollaa ci rab na bandi yi profité ba la fin film bi Big Darex sonal na moom it kaw non kaw ñëpp ko sonal kaw mais kaw ah, c'est bizarre nag non yi rek underground dañ koy pic rek non xëy xëy na dafa xew moo tax dafay assuré xëy na xëy na dafa xew xam boo xewee. Ah. gars yi dañ lay laal waa ah, mais bandi bi bandi mm. bi bon ça m'emballe pas son bi. man clip bi ça m'emballe pas nice def na clip mais le son. Uh-huh. boobu ça m'emballe pas dafa dafa bëri monotonie jamono ji quoi yaa kaawoo même même beat bi même rabin bi même wax yi même wax yi encore même. enfin moom da may fàttali benn rëf ndégg quoi moom day wax ñaari benn demi mesure bàyyi mu jàll ñëwaat beneen demi bi bàyyi mu jàll ñëwaat beneen demi mesure bàyyi mu jàll loolu loolu loolu day day may yow mii di déglu ngay. bon ngay comprendre donte sax même bu fasee sax da ngay comprendre mais. loolu si xëy na moom ah, jël style boobu moom saa ñooy loolu authentique. xam nga boo nekkee day neex ko mais bu fekkee tey lyriciste c'est pas fameux tamit. mais moom moom tey il n'est pas. dawala rek kiiwul la kiiwul la luwul la. bon bu fekkee ni c'est pas un lyriciste fameux nii yow dawalal quoi. <laughs> dawalal quoi dawalal. mais loolu technique la rek mais loolu technique la quoi mais moom sax moom. kaw moom daan na fi big date bi mu génnee ak tourisme 3 bi daawul bind ay affaire naan ko ay kii mais lu tax. waaw dëggalu loolu quoi. vraiment parce que soo yaay Big Dad génnee na son jour ji son bi deful sax vingt minutes nga dem. bind dem ci kii yam bind quoi mhm. n'est-ce waaw loolu loolu. kon doon Mojo kële Mojo waaw maa ngi maa ngi jaawale. Mojo <laughs> si by the way xam nga def na sound. xam nga tuddee ko fly. moo jë mais bon xam naa jox nañu rendez-vous ci kii show de yëngu. waaw xam dem seeraani quoi seeraani voilà allah ah, bon temps bi tënk nañu. xam naa dañuy dañuy dañuy kii. ah show dañuy dem de. waaw ah, baax na fa et jàngi fa. Ah, waaw tey suñuy. non grave cool la <laughs> <laughs> fa lañ jugee quoi. fa lañ dañuy tënk ah. dañuy tënk ba beneen yoon. Mm-hmm. affaire yi bon bëggoon nañu gën a yaatu. mais temps bi moo ñu ko mayul te tamit bon comme Sénégal ba léegi on n'a pas esprit là déglu podcast parce que gars yi dañu naan dafa gudd te dañuy fàtte juste podcast la loo xam ne mën nga ko déglu sans seetaan ko. Hmm. Euh, looloo tax des fois muy gudd quoi bon. Euh, di leen jox. Euh, mais Maloma waaw. suñu grand Fata génne na album bàyyi. waaw Fata nga El Presidente. Global El Presidente. <laughs> mais alors ngeen doy wax si maa ngi mën a. daa mel miliyaar ak coow. <laughs> non bi jaa sama gain. te lu te lu te lu ci gën a grave mooy dafa naa annoncé naa l'album du siècle. waaw gain nañ noppi na di ko. Eh, non xëy kon nañ ko nañ ko bëtal kon grave. non defagul eh, eh, promo bi. man moom tam légende la nag légende la nag. légende la waaw mais génnee na quoi dem leen ngeen déglu. waaw baal a wéy baal a wéy a wéy ñu leen jox ñëw incha allah ci fan yu néew waaw parce que slow. entertainment for the culture entertainment. waaw see you next. Mm.